Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et euh, ci bis bi nga xam ne moom la Serigne Gana Messere Maxtaar moom Serigne Modou Maxtaar Mbacké di amal Alaaji musa muy bis boo xam ne nag boobaak léegi dégg ngeen appel bi ay fan a ngi nii dégg plateau yu am solo yi nga xam ne jot nañu ko cee def ba démb plateau moom moo collecturé li nga xam ne moom mooy euh, palato yi fi doon jaar mooy euh, sëñ Gana Messere doon ci waxtaanee ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim diggam ak maam Thierno waaye ñu dugg ci ay yoo xam ne am na ci biir bi bis bi nag di bisub ñaan sant Serigne Touba delloo njukkal waaye fàttaliku ak a ñaanal jàmbaar ja Serigne Moussa Makhtar Mbacke boobu la bis nag Moussa ci suba léegi. sëriñ bi ñu ngi koy amal ànd ko mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ànd ko njabootu ku tedd ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim euh, mu xëy amal jàng alxuraan jàng xasida istighfar salaatu ala nabi waaye amal ay berne yu takku jagleel ko mboolem njaboot gi nga xam ne teew nañu fi subaak léegi Moussa kilifa yu takkoo takkoo takku teew nañu ci bis bi yëkkati fa ay kàddu yu am solo feeñal seen digganteeg Serigne Ganna Messere Maxtaar fii ñuy waxee yenn ñu toll ci li nga xam ne mooy ci pandaw li mooy di waaj a amal li nga xam ne mooy cérémonie bi instant yi ñi ngi def mise en place jànkati xasida yi ñi ngi yëkkati xasida fii ñuy waxee ak yéen kilifa yi ñëpp ñu ngi nii toog njabootu Serigne Touba gi gis nañ Serigne Moustapha Guèye moom Serigne Amsatou Guèye xam nga ne ci suba ak léegi euh, moom. ànd na ak xalifa Serigne Amsatou Gueye di Serigne Mabé Gueye ak mbooleem ay rakkam ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoom daal di ñëw ci bis bi fekk si Serigne Gana Messere Maxtaar waaye ñi nga xam ne it ñoom la Serigne Gana jël ay cër yu am solo jagleel leen ko ci bis bii ñoom ñëpp tey Moussa teew nañu fii euh, yabal li nga xam ne moom mooy euh, ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi leen di accompagner ñu ñëw teew si fii nga xam ne moom mooy. ci Serigne euh, Gana kër Serigne Gana Messere Maxtaar kon xam naa ne El Hadj Moussa du ñu du def lu dul rek euh, bàyyi la kàddu gi fii ñuy waxee yéen cérémonie bi li des mu tàmbali bareetul euh, mise en place bi ñi ngi koy amal fii may waxee ak yow ay site internet yu bari ñi ngi koy def en direct di yaatal liggéey bi Rafa TV Sénévision. académie euh, Minane ak ñi nga xam ne mooy 24 actu Tawfekh production alxadimiya Assalaamy FM moom tamit di ko def en direct kon bis bi tamit nekk na bis boo xam ne daal Moussa bis bu am solo la mel na ne li ci sëñ Gana Messere doon xaar am na ko ci yan kàddu ngay yëkkati le temps que Moussa Moussa Diop cérémonie bi euh, di di war a tàmbali. jërëjëf Serigne Arona ñi ngi lay euh, sant baax di la gërëm di la ziar bu baax a baax di la ndokkeel. ci euh, taxawaay bu am solo bi di sant yàlla rek xanaa ni nga ko waxee di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di santaat bu baax suñu yaakaar tey ëllëg te dëkk di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye itam ñaanalaat bu baax ki nga xam ne mooy euh, Serigne Bassirou Anta Niang tey yàlla kattanal ko dolli koy tawféex ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba lépp mu defee ko nu kawe njortam noonu tam lañ koy ñaanale mboolem njaboot gépp yaakaar naa ni nga ko waxee Serigne Arona depuis euh, ñoo àndandoo di dund lu am solo li nga xam mooy am fii ci Darou Mouhty tàmbalee ko ci appel bu am solo bi nga xamante ni woote woon na ko moom Serigne Gana Messere Maxtaar waaye tam nag ngir xam le ni dafa am loo xamante ne ko yëg muy war a sant Seexul Xadim Xadim Rasul waaye daf ko yëg itam ngir wala delloo jukkal ak Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty daf ko yëg itam ngir wala ñaanal sëñ Modou Mokhtar mi nga xam ni lu Serigne Gana Messere mer tey sëñ Modou ko waral day bis yoo xamante ni ñett da cee lépp nag bu ci nekk ngërëm la ndax ku am loo xamante ni yëngu ko ci Serigne Touba ba nga xam ne dangaa bëgg a ko yaakaar naa jàpp loo xamante ni Serigne Touba defal na ko ci yaakaar naa démb laaj nañ ko ko mu dee li ma Serigne Touba moom a defal lépp kon su fekkee tey jii ñëw nañ nag euh, ni ñu koy ni nga ko waxee euh, jàng alxuraanul karim li nga xamante ni moo gën a leen Serigne Touba ba mu waxoo ni kansil kitaab wal hadis wal adab laa jëm ak fidda wala jëm usahab kon yaakaar naa ni alxuraan su ko jiitale rek man nañ cee rafet njort waaye itam nag ñu teg ci li nga xamante ni mooy xeet istifaar lépp luy di jàmm yàlla ñu teg ko ci bés bi kon yaakaar naa ni euh, bés bi moom lépp li nga xamante ni lu baax la euh, lamboo na ko laata waaye itam naka noonu itam ci suba ba léegi kilifa yi ñi ngi ñëw kenn ku ci nekk di saafonteeg sëriñ Gànna moo xam ñi nga xam ne kilifa yi lañ waaye ñi nga xam ne kilifa nañu ñoom ñu nag tey am relation ak Serigne Gana kenn ku ci nekk ci ñoom ñenn ñi Serigne Gana daa am lewoon ak ñoom ñu ñëw nag di fetli seen kóllëre muy ñëwoon ci ñoom nag ngir sëñ Gana mas naa euh, euh, ranu seen tànt waxtaane li sëñ Touba ñu bég ñu dégg ko ñëw am ñoo xamante ne dañoo sëq ak sëñ Gana relation boo xamante ne tey moo tax ñu mën a ñëw moo tax soo xoolee cérémonie bi ni mu mel wax nga léegi sa xarit sa wëllëre di suñu xarit suñu wëllëre mu di sëñ Moustapha Gueye ak njaboot ak sëñ Amsatou Gueye ak njaboot ak sëñ Mabé Gueye gépp àndandoo gi ñu àndandoo tey yendoog sëñ Gànna ba ñëw nii nekk ni ci liggéey bi kon yaakaar naa mën nañoo jàpp ni kon lépp la nga xam sañ Gànna lebalante woon na ko ak ñoom bu mel na ni euh, taxaw nañ temm ngir fay leen ko waaye nag suñu waxee bis bi nga xam bisu sant la yaakaar naa ñàkku ni li nga xamante mooy benn gis naa léegi sa xarit itam euh, sëriñ Saliou Mbacke mu El Hadj Bara Mbacke Falilou mu ñëw fii am taxawaay bu am solo boo xamante ni def na ko ci kàddu yu seere yu am solo yoo xam ne def na ko jëmale ci Serigne Gana ndax sëñ euh, Saliou Mbacke El Hadj Baara Mbacke Falilou léegi la génn waaye yaa ngi ko doon wax léegi nii muy teraangaay sëñ Bassirou sëñ Abdou Khadir yi nga xam ne def na ko teraangaay sëriñ Modou Kara Mbacke Noreyni yi nga xamante ni def na ko ak ki nga xamante ni mooy directeur u SICAP ci suba mu xiisi si fi wax kàddu yu am solo yi nga xamante ni yaa ma koy gën a li ndax yaa neen ci biir doon euh, séqan yoom euh, jotaay bi nga doon def kon yaakaar naa tey suñu xoolee liggéey bii nga xamante ni ñu ngi koy amal euh, sëñ Arona laata ma lay bàyyi nga def commentaire ñu dellusiwaat mooy ñu xam ni lépp Serigne baay kese la Serigne Touba moo leen boole ci lépp moo tax liggéey bi ba mu toll tey mu mën fee toll moo tax itam liggéey bi mën a agsi tam man fee agsi yaakaar naa sëñ Ngana Ndiaye mu yëkkati xasida ba bàyyi nii sëñ Ilimane Touré kenn daf ko laam-laamee moom nga dégg mu yëkkati xasida am solo yooyu nga xamante ni mi ngi daw suuf kon yaakaar naa ni bi ma nafa wax nga léegi presse moo xam site internet yi ca loolu su ko defee euh, mutalaarafa mee ak yow mii da ngeen ci am waaru am solo woo xamante ni ngeen ko ciy bay ndax soo xoolee sañu aaroona euh, dimanche altine talaata ba tey di presque tey di nekkaat samedi euh, nekkaat dimanche bés bu set ñu ñëw fii ci Daaru Moxti amal fi ay palaato yoo xamante ni dañuy waxtaane mag ñi waxtaane seex si di dundalaat leen kon yaakaar naa ni tey jii jàpp nañ ni kon euh, presse bi def nañ seen kéemtalaay kàttan gis nañ waa Lamp Fall yi gis nañ waa Touba TV gis nañ mbooleem euh, organe de presse yi ndax euh, ak rajo yi ñu ñëw wuy sëñ Gana kon yaakaar naa lam leen lebaloon ñëw nañ fay si ko am na ñoo xam ne dañoo ñëw fay lebal si ko ndax ku ñëw tey lebal si ko bés bi ak boo mën a doon ak foo mën a nekk bés bi naa la fay sëñ Arouna ñu jox la yow tamit nga dikkaat ci commentaire yi ndax gis nga ni mel. parrain yi nga xam tudde woon na leen ko moo xam waa mi branche Ndiambour sëñ Mor Abdou Seye kenn waxtaane woon ko fi waaye tam gis nga ñeneen ñi nga xam ne tudde na leen ko muy waa Jélee mi Silla ñoom itam am délégation bi am solo boo xam def nañ ko ñëw ak nga xamante ni sëñ Gallane tudde na leen bés ñoom ñëpp ñëw nañ tey euh, ki nga xamante ni euh, mooy euh, gaynde baara moom itam taxawaay bi nga xam ne am na ko tey ci liggéey bi nga xam def na ko tey jii ànd ak sëñ na ci bés bi ñëw siyaar ko delluwaat démb itam monsieur le maire Abdou Lahad Ka di maire Touba itam ñëw na fi di saafoonteeg sëñ Gana xam nga lu wax gaa sëñ Gana ñun ñëpp dañoo ñëw bëgg maa gis di ma ñaan audience waaye man maa la ñaan audience euh, euh, muy kàddu yu ama am solo yoo xam ne démb Moussa le maire Abdoulahat Ka yëkkati na ko nekk maire de la commune de Touba euh, mu jëm ci ki nga xam ne mooy Serigne Gana Messere Makhtar mu xamal ko ne ko yow ñu bari ñoom ñëw ma bëgg a gis di ma ñaan audience waaye yow maa la sàkkoo gis. waaw ñu bari ñoo may bëgg a jot yow maa la sàkkoo jot loolu nag sëñ Gana Messere Maxtaar dafa dafa xam Moussa xam li la war baax na waaye xam li la war fexee wàccoog li la war a ko gën ndax léeg-léeg nit mun naa xam li ko war wàcc la ko war mooy euh, dañuy wax ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ci borom sëñ Gana nag daa xam ab àndam nekk ci mooy lan xam ne kat jamono jot na ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim baatin bi moo ko téye waaye zahir si nag ñun ñoo ko war a téye mooy di nammaat xel yi di waxtaanee mbindum ku tedd ki di waxtaanee ay taxawaayam ngir gën a joyalaat pas-pas yi gën a nammaat pas-pas yi ngir ñu gën a waggar wëlbatiku bu baax ci gën a bàyyi xel liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim sëñ Gana dafay wax benn baat bu ama am solo mooy day wax ne sëñ Touba ñeme naa ci ku ne maanaam moom mën nañ ko tuddee soldaaru Bamba ndax. Serigne Touba moom day wax ne ñeme na ci ku ne kon nag jàpp naa ne euh, ya taxawaayam nekk na taxawaay bu am solo boo xam ne tey su wootee bisu sant Serigne Touba ak taxawaayam ci yoonu Serigne Touba taxawaayam ci Touba taxawaayam ci njabootu Serigne Touba bu wootee sant sëriñ Touba njabootu Serigne Touba bu fi ñëwee tey de maanaam ñëw nañ ci ku ñu war ñëw ñëw nañ fu ñu war a ñëw waaye ñëw nañ ci bis bu ñu war a ñëw muy bisu sant Serigne Touba. te loolu lu ama am solo la moo tax Moussa ne ci lu baax rek moo baax ne ci lu baax rek moo baax saa boo nekkee ci lu baax rek boo gëstoo gis ñu baax ñi ndax am na ñoo xam ne lu baax rek la ñu bëgg kon nag yaakaar naa fii ñuy waxee ak yéen euh, Serigne Gana Messere Makhtar euh, wuy nañu ko gis nañ fi njabootu Serigne Mamar Sey euh, Lampum Njàmbur gis nañ fi njabootu. Serigne Bass Khadim Awa Ba ñëw na fi ànd ak rakam sëñ maam Cheikh ak kilifa yu takku gis nañ fi Serigne euh, direct DC Mamadou Kassé gis nga kàddu yi mu yëkkati tey kilifa la il n'est pas n'importe qui mais dafa toog ci suuf xam na ne Serigne Gana yow sama jëwrin nga sama Serigne nga jàppee ko xarit rek yam ci mais jëwriñ la ko jàppee Serigne la ko jàppee kon loolu yaakaar naa nekk na lu am am solo tey Serigne Gana buy waxtaanee. mbindum ku tedd ki ñu gis jànkati xaside yi ñoom ñëpp ñu ñëw ni toog yaakaar naa nekk na loo xam ne eh, delloo nañu mbàtt ca ndaa la tey communicateurs yi kenn desul ñoom ñëpp ñëw nañu jàppale si Serigne Ganna Messere Maxtaar ci bis bi mbokk yi soppe yi wólëre yi ci suba maa ngi wax ak Serigne Souleymane Kama muy leeral eh, li nga xam ne mooy kuréelu soppee Serigne Ganna Messere Maxtaar mu wax ne 15 cellules am nañu ci foo dem ci biir réew mi rek da nga fa fekk kuréelu soppe Serigne Ganna Messere Maxtaar te loola nag soppuñu ko ci ay caaxaan soppuñu ko ci nakol sudul noona ci lan lañ ko sopp mooy laxasaay gi mu takk ngir liggéeyal Serigne Touba di waxtaanee mbirum Serigne Touba engagé wu ngir protéger yoon wi ñag yoon wi ba kenn ñemewut a xool. Gana Messere Maxtaar di yab yoon wi di ko jaaree ci moom loolee liggéey boobee taxawaay boobee la ko nit ñi soppee mu am ay intellectuel yoo xam ne ñi ngi ci biir kuréel gi am ay homme de ay kilifa yoo xam ne ñi ngi ci biir kuréel googu yaakaar naa ne kon Serigne Gana am na ku nekk la ko ko may nag nekk ca la mu war a nekk mooy liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim mais Moussa boo ñu doon jàngatal taxawaay bi nga xam ne boobaak léegi. boobaak léegi am nañ ko ci bis bi en résumé rek ci lu gàtt rek euh, mel na ni tey yokkute am na ci wàllu communication bi di gërëm bu baax Moutala Rafa ci taxawaay bi ak équipe de production bi mu àndal ak mboolem ñi nga xam ne it ñoom la àndal ñu yaatal liggéey bi boobaak léegi chaque ngoon dañuy déplacé wu ñëw ànd ak Serigne Gana Messere ci liggéey bi yàgg nga dem couvrir ay événement yàgg nga nekk ci ay programme boo ñu doon jàngatal évaluation bi tey lan nga ñu mën a wax ci durant ren yokkute ki nga xam ne gis nga ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne doon nañ ko liggéey. jërëjëf sëñ Arouna euh, ci euh, laaj bu am solo ak jàngat bu solo bi nga xam nam nam nañ ko cee def soo xoolee li nga wax dafa am solo ndax tey euh, lan moo ko waral li njëkk. mooy jikko moo ko waral jikkoy sëriñ Gana moo waral tey lii nga gis nii soo seetloo presse bi ni ñu taxawee tey ni nga ko waxee woon yaakaar naa soo seetloo tey jii euh, kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk yi ñun taxawaay bi nga xamante ni am nga ko tey suñ la fayoon diggante bu baax léegi yaakaar naa 500000 du la ko jaral ndax li am solo mooy li tàmbalee 17 heures. wala nga jógee sa kër ba 23 jàpp jàpp minuit ngay soog a duggaat sa kër sa connexion ngay taal sa oto ngay taal sa gasoil yow ñu di ñu indi def leen nag leneen kon loolu lan moo ko mën a waral mooy nit ku la jox kër jox la euh, wane la boppam ci bëgg waaye tamit wan la sëñ tubaay kase waaye su fekkoon nii dañoo dem ba xam ne euh, sëñ Gana boppam la ñuy wan. wala mu ñuy wan ni man maay diw maay diw su boobaa yaakaar naa duñ ko jaral wala boobaa fi ministre yi wala fi directeur yi jaar wala fi nii jaar ku soxla sëñ Arouna fa ngay jaar ba euh, wax ak moom laata ngay dem euh, ngay euh, taasee ma atuwaay di dem lam ca war a def lépp dana ko def waaye nag li tax loolu lépp mooy xam na ni xam nga ni sëñ Gana ci yoonu suñ Tuubaa nekk di liggéey te yoon woowu mu nekk di liggéey nag yaakaar naa ñun ñëpp kenn ku ñu nekk war ngaa doon support boo xamante ni dangay ngay ànd ak moom pour jëm kanam pour jëm kanam loolu nag moo am solo tey soo seetloo lii nga gis nii yaakaar naa fayeku sëñ la ndax wax naa la ni la euh, sëñ Gana ba mu koy lebal sëñ Touba ñun ñëpp ñu ngi àndante newoon ak moom fii yendu nañ fi añuñu fanaan fi réeruñu lépp def nañ ko ci daaru Muxti ndax loolu lan moo ko waral booba demoon mu bëgg ni borom daaru xam borom daaru yaakaar naa su demee tey ba borom daaru am lu mu ko dénk su defutoon nii rek ma yaakaar ni kon lam doon wax booba am na lu ci jot a des waaye lépp lépp lépp mat na waaye nag bis bi la tam bis la bu nga xamante ni kenn xam na ni ñun euh, soo ko mënoon man nga ko defee sa bopp soo mën a taxaw itam am na taxawaay booba moom nga cay am waaye su fekkee ci côté communication bi nga wax yaakaar naa ni soo seetloo tey jii booba ak léegi nii réseaux sociaux yi feese dell ak sëñ gànna ni mu feese ak borom daaru ni mu feese ak jëfam gii ni mu feese ak cant gii yaakaar naa loolu nit yor na ay milliards te mënoo ko am kon nag li ko war a maye mooy euh, li nga gis nii rek muy oyof gi bëggante gi soppante gi ak wóolante gi nga xamante ni am na waaye ngeen def ma la léegi rôle bu am solo boo xamante ni euh, bañ koy tàmbali appel rek rek yaakaar naa ñun ñett a fi nekkoon daanaka am waaye tey soo seetloo ñu ñëw nga xam ni communication bu jàll la ñëpp ñëw. fekk si liggéey bi muy appel yi ñuy def ci rajo bi muy plateau yi ñu def ci télévision yi ak site internet yi lépp ak yaatal ak tasaare yi nga xamante am na ko kon mën na jàpp ni ren euh, sëñ Gana euh, ci côté communication am gagné na ko ci màggal gi 100 pour cent nag waaye nag loolu su ko def yéen ñi lañ koy sante sëñ Moutala mais ak équipe technique bi nga xamante ni boobaak léegi ñoo ngi ànd sonnuñu tàyyiwuñu dàcciwuñu lépp nag ngir liggéey yaakaar naa ni soo gisee barkadee bu bésam mi nga xam sëñ bàcc jot jànkat mais moo ko woon taxawaay bi sëñ gànna am nga xam ni kooku itam ku jar lebal la ndax ba sëñ bàcce nga ne xam naa bërki démb ak léegi diggante bi yàggut waaye gis nga taxawaay bi nga xam am na ko ñëw ni ma damaa bëgg a yëkkati xasaay ci kanamu euh, nit ñi nga xamante neen xam ni sëñ gànna la ma la ma ko lebaloon muy tudde ko bés fay si naa ko ci loolu jiim naa la wax jéem te sëñ gànna itam dafa teraanga joo xamante ni teraanga ju mucc ayib la toog waxtaanal ko sëñ Tuubaa ba ñëpp bég kon yaakaar naa ñëpp dañoo fay si bor tey ñëpp dañoo fay si bor bor boobu nag mu defoon moo tax tey nga gis communication bi mu jàlle ñëpp taxaw ci am ci taxawaay sëñ Aaroon kon xam naa ne du mu def lu dul rek incha allahu euh, bàyyi leen ak euh, jànkatu xasida yi Serigne Elimane Diop mooy jàng xasida jamono ji ñuy waxee ak yéen euh, gërëm bu baax Serigne Moustapha Guèye moom sëñ Amsatou géey Euh, ndax dafa def jëf ju am solo ci bis bi doon fàttaliku maamam Serigne Mabé Guèye jël ab oto bu seer bu dëppoo ak jamono boo xam ne tey boo ko doon xayma ay millions yu takku la moom jëmm jii di Serigne Moustapha Guèye mu boole kook lim bu takku boole kook jëmmam ak ay rakkam njabootam jébbal ko Serignam magam xalifaam di léppam di Serigne Mabé Guèye moom Serigne Amsatou jëf jooju du lu am solo rëy lool ci Serigne Mabé Guèye ba tax na gis nga Serigne Bassirou Khadim Awa Ba bi mu ñëwee tey dafa xëcc Serigne Moustapha Gueye euh, euh, euh, di di ko di ko seedeel jëf jooju mu koy seedeel Serigne Bassirou Khadim Awa Ba kon nag mu Moustapha jëf jooju nga xam ne jëf na ko nekk na jëf ju am solo aw yoon la nit ku baax la koo xam ne diggam ak sëñ Gana moom it nekk na diggante boo xam ne lu yàgg la te Serigne Moustapha dafa doon koo xam ne seetu bu toj la maanaam saa bu tojee seetu bu toj moom saa bu tojee ku ci jëlu tojit xool gis sa bopp Serigne Moustapha ndawalu guddi la ku làmbu daj da ngay defee ne yow yaa ci ëpp ëppale ñëpp nit ku baax la mi ngi ànd ak mboolem ay rakkam gis nga leen suba ba léegi ñi ngi ñëw noonu it la ko Serigne Gana Messere Maxtaar di di leen taxawoo bisu Serigne Amsatou bi nga xam ne moom mooy am fële ca fa nga xam ne moom mooy ngàcc bis boobu gis nga ko lépp lu aju ci programme ba rek Serigne Ganna Messere Maxtaar moom moo koy yor loolu tax nag tey ñoom it njukkal loolu euh, ànd ak njabootam ngir feeñal seen yéene ci Serigne Ganna Messere Maxtaar waaye gis nga kilifa yi ñoom ñëpp actuellement ñoom ñëpp ñi ngi nii toog ñi ngi xaarani nag njabootuk euh, délégation wu sëriñ Soldat soldar ah, ñu ngi koy Mouhamed Samb soldar délégation am ñu ngi koy xaarandi également délégation soxna Mominatou Kébé docteur Soura moom it am na cër bu rëy ci bis bii ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaarandi yaakaar nañ ne lu yàggatul dara euh, ñu ñëw sécurité bi nag nekk na sécurité boo xam ne mat na sëkk ndax gis nañ fi ñoo xam ne ñooy assuré loolu gis nañ fi waa Croix Rouge ñoom tamit macha allah euh, ñu ñu ñu ànd ak euh, waa hôpital Matlaboul Fawzeyni ci suba amal nañ amal nañu consultation gratuite muy lu ama am solo loo xam ne yaakaar naa ne nekk na lu rëy démb rek Serigne Gana Messere Maxtaar euh, mu ngi koy euh, mu ngi koy feeñal euh, jëf jooju ci plateau boobu bi nga xam ne ñu ngi ko doon def kon du ñu def lu dul rek daal di ànd ak présentation bi moo du Mbaye Ndiaye moo nekk présentateur bi. Euh, tàmbaleel Moustapha Guèye moo war a gérer cérémonie bi su ko defee yaakaar naa kon incha allahu taala rek ñu bàyyi leen ngeen suivre cérémonie bi nga xam ne moom mooy am fii nga xam ne moom mooy ci kër Serigne Gana Messere ci bis bi nga xam ne nag ay fan a ngi nii ay weer a ngi nii ko woote bis boobu moo yegg si tey nag ñu war a egg si ci war ko collecturer kon ñu bàyyi rek ngeen suivre cérémonie bi nga xam ne moom mu ngi ballee fii délégation yi nga xam ne itam mooy ñi ñu tudde woon bis bi ñu ci bëri agsi nañu sëriñ Mor Abdou Sey làmp Njàmbur ñëw nañu ci kanam tuuti bu ñu tàmbalee cérémonie bi dinaa ko présenté délégation bi nga xam ne itam mooy sëriñ Abdou Silla bàyyi ko Louga moom gis ngeen ci kaw tribune bi xam ngeen ni su ngeen xoolee kaw tribune bi xam ni ñoom it ni nu ñëwee yëg nañu bis bi ci kanam tuuti bu ñu tàmbalee dinaa ci ñëw sëriñ Moustapha Guèye nga nee toog moom alaaji Amsatou Gueye moom sëñ Mabeye Gueye ak mboolem ay rakkam danaa ci ñëw ci délégation bi léegi su ko defee lu maye rek ñu jox sëñ Mouhamadou Lamine Diop ñu bëri ñu ngi dégg ay taalifam yi muy def ci njabootu sëñ Touba gi euh, waa presse bi yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp ci xam ngeen ni ñoo ngi en direct ak Rafa TV Alxadimiya Sénévision waaye waa Lamp Fall

ñu mayee dégloo ndax waxtaan deesu ko dégg dañ koy déglu euh, ñi nga xam ne ñooy jàbbante ci diggante bi caméra yi maanaam loolu dafa yàq image yi ñu ngi sàkk ci ñoom ñu dimbali ñu ku mënta bañ a jaar fii nga sëgg ba nga xam ni caméra yi di nga mën a jaar ci ronam kon sëñ Mouhamadou Lamine bisimilah. bisimilah bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli ñu ngi leen nuyu di siyaare ci bis bi di ci barkeelu ndax day bis bu am solo ñu defaloon ci sëriñ gànna ay bayit sëñ gànna man mad lamin jóob maa siyaare si ngir barkeelu ak sàkku aw yiw bis bi mën na lu ne ngir yow ca Touba nga daa def bis bi ñaar fukki at yu teg juróom waaye Toubaay Daaru tax na nga ne gannaaw Sëriñ Bamba mooy maam Thierno naa ko toxal am Bamba am Thierno muur muuraake lii jafe na gannaaw sëriñ bi de yow na gànn mooy li la ñor amoo gëneen bëgg sëñ Bamba ak ñoñam nga wone sëriñ bi moom mën na boppam mën na gaa yi ko seen bopp suñ gànn kon sam xel na dal fu nu ne sëriñ bi nekk fa ak nun noon yi dootuñu bég ku sëñ bi fees dell sab xol raw nga wàll gu ne sëñ gànn képp ku lay xam xam ni sëñ bi ne yow ak waa këram seen ngërëm ngay sàkku waxtu wu ne yow moom ku lay soxlu it sëñ bàmba soxla na la taalu murit gi ne da nga koo xam bu matt gu ne ngir nit ku sëñ bi joxoon ab cër ci àdduna ji yow dem nga siiwal cërëm boobee màgg fu ne sëñ Modou Mokhtar de moo noon gànn naa la tudde sëñ gànn Mokhtar da da maag dend nañ ci lu ne danaa la boole ci askan wii fi gën te danaa la boole ak sama jëmmi bopp daal di ni la saa doomi bopp da lay jël jox la soxna nga jël doomam sëtub Ceerno ak Seex Awa Balla mu ne sëw tur de siiw ba day daj fépp fépp fu ne ci réew yi duniyaa daf maa leer le nañ li ne te booba gànn amul woon as weloom su mu war day wër di waaraate day fandaañu waxtu wu ne tey nag tubaarkàlla 4-4 yaa ngi nii fu ko neex kon la sëñ la na la sëñ Maxtaar waxoon dikk na wala fi ngir euh, euh, tey nag tubaarkàlla kaa ngeen 4 yaa ngi nii fu ko neex fanaani kon la Maxtaar waxoon dikk na moom gànna génn guddi léeg-léeg mu am ci lu mat nag ñett mbaa ñeent ci waxtaan fu ne sori na walla fi neeñu bu suuf baaxee te jiwuwa muus ñu bay ko jiwuwa mën naa meññi depp mu ne sa yaay ja lam daj sa kër bàyyi ba liggéey fa lu ne liggéeyu ndey nag añub doom lii la topp ma ne sa yaay ji baax ja di soxna bii gi juub ku ko xam xam lam texoon xam ni lam doon ji tey tey seqi na sëriñ ma jàng mesareet mii doon sa bàyyi ku bëggoon aw yiw la am diine am jom ite jaat kawe na ku yewu nag dañu laa déey gàn na yow ki la déey danaa la déey ndéy la ngir daay gëstu wàllu gu ne sëñ Moustapha sa doomam sëñ Xaliil la wax loo xam ne doy na ci soññee sëkk ndax dala ni bii gént naa gis sëriñ Touba mu wax ma ni ma neel gànna nay neel gànna nay waxtaane ñaari moor yi fépp fu mën a ne na leen di waxtaane muy maam moor mu ant sëli maam moor borom saam te géntam googu nag dëgg la man nag danoo bokk pas-pas bokk bëgg sëriñ Touba ku bëgg sëriñ Touba daanu ma ne képp ku bëgg sëriñ Touba daanu ma waaw man nag danoo bokk pas-pas bokk bëgg sëriñ Touba ku bëgg sëriñ Touba de daanu ma li wér di wóor gànna sëñ beeg mag ñi sant nañu ci nii nga mel bis ba buñ teewee danañ wane bi bis bañ ci teewee sëñ Tuubaa dana la wane ni kéema yoon tàgg nañ ñëw te danga ci bokk waaw yi fi toog ñëpp danañ ci bokk ndax lu baax rek lañ bëgg yàlla na nga wér mucc fas wi na war kawaram day ramm sàkkaa ka war nag fas wi lii dëggu na ñaan ñaanal sa baay ak sa yaay ak ceerno ak sa sëriñ sëñ Modou Maxtaar sa jëf ji mën na dëkk sëkk ma ne téeméeri at yu tegal yàlla nañ di teewe nga teew fu nu teewee itam yàlla na sëñ bi teew ci wàllu gune allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam barke Seexul Xadiim waa kay jërëjëf na kon kon ba tey noonu la ñu wéyalee sëñ Cheikh Mbacke nga dugg def sa barkeelu soo noppee sëñ Bàcce nga nii sëriñ Mbaye Ndiaye nga ne ak sëñ Moussa Gueye su ko defee ñoom it ñu def seen barkeelu ñu njëkkante ak waxtu yi balaa yeneen kilifa yee tàbb si ñu wéyale waxtaan bi Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Jiiri noo ngi lay nuyu bàllee sa la jox sa wàccuwaay bisimilah dana ñëw ci kanam tuuti يا مولد البصير يا ميال والدور يا مولد البصير يا ميال في دفاع سكان لكل هاد ينتمي سلام البزر بغي الدين للمزر بالله وسلم بدر ما سلام يعتمي يا ملهما قد وفقا صل على من خلقا والخلق فاق خلقا كالخلق هو تسلمي قد كان ذات مسجدي في الغد جال جدتي ولم يكن بالمفرد ولم يكن بعدمي ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سمع من منتم لعدمي كان يطول كل من ماذا في كل زمن وكان واصلة يدك بتبسمي وهو جليل القلب بياد المشرب بأمرة وهدب وأنجل سور الزمين يفطر في أسنى الجشام كالبرغاب بالقمام ودقوا يدلو سلام كسروج في سلمي ووجوام مدور وقميص أزهر وهو بئي الأسمر مرتل تكلمي كان ما سابي في غد المعصبي وكان زبد القصب إرنين وسوس ممي كامل أسن أدأج وأسنب مفلج وأسكل مبتهج والوة مع الخمم وهو أجمل الورى خلقا وخلقا سيرى ومثل قتل لم يرى ولو يرى في سيمي أحمدنا رحمتنا حمدنا نعمتنا محمودنا فراتنا والجود مصر الديامي أرمدنا رحمتنا آمدنا نعمتنا محمودنا فراتنا والجود مصر الديامي جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعت محمد بسم الله وهو رحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما زفي مصعب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قال لي خدمته وسورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني الأقلام سيدنا سفينا المقدمين عند الذي تسكن لدي قدمي محمد وزيلتي وجنتي عن الهادي والأسى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الليل والمال بتكراري هزام قصدي قمة تغرو أي النبي بها كما تبرو نويت من سلام قمة تزر مصفها به كفيت معذر خرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائي كفاني صدما أحمده على قرود من درر وكل سوء وأناء وقرر أشكره شكرا يجور سيدا بذن ولا يجور ناوي كيدا حمدا وشكرا الله جمع برورا رب الورى والزهزأ القرارا فقمت ناصما لسي المخدما مصليا بها على من خدما مرتديا كوني قديم أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالك أن ينفعا بها التي يريد أن ينتفيها جعل الله بدعي المصطفى صلى الله عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي عذابا كم نسي كابدني أصابا أجوزة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله أجوزة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميت وجالبة المراقب كاجل كاجل لراقب سميتها جالبة المراقب كعاجل كعاجل الزاخبي خدم صرفته للمراد قائلا ما صفاي بيته قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي جللن سيدنا محمد كسب سيدنا محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ana ñu gëm Seydina Muhammad def leen ni ñu màggal Rasulallah yi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi sallu alayhi wa sallimu tasliman labayka rabbi wa sadayka wal xayru kullu bi yadayka abdaka raji bayna yadayka musalliyan musalliman ala akramil xalq laday qailan ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya hibbana amartana bi an nusalli ala سيدنا أحمد البرية العلا محمد ونسلم على يا باغيا أبقيت يا باغيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه وادخل لما أروم صلي عليه في جميع الليالي مع سلام وسجب سؤالي صلي عليه في جميع صعبي مع سلام وتود الليبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل غير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تقسم أما سلامة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود أزنا سبحان ربك رب سكا ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال بكاو ما جوي بي سانغ بو سel tabax cheikh mor abdou sey ku sopp lamb ñambur defal nañu magal cheikh mor abdou sey وقال بكاو ما جوي بي ما جوي بي سانغ بو sel tabax serigne mor abdou sey moo leeral njàmbur ku sopp borom njàmbur defal nañu màggal lampam njàmbur Cheikh Mor Abdou Seye waxal bu kaa ma jooy fi sang bu sell te baax am njëriñ lool yéen bi ndeeb yàllaaw Cheikh Mor Abdou Seye Cheikh Mor Abdou Seye Cheikh ku daa jaamu yàllaa ngi Cheikh Mor Abdou Seye ku daa jukkoog bokk ngi Cheikh Mor Abdou Seye ku fonkoon Sëñ Tuuba fonkoon waa këram ku fonkoon Sëñ Tuuba fonkoon waa këram fonkoon kitaabulaay Cheikh Mor Abdou Seye te dara jaamu buur ba Cheikh Mor Abdou Seye di roy yeneen ba Cheikh Mor Abdou Seye gëmoon Cheikh Bamba ku sopp Cheikh Mor Abdou Seye dafay nañu màggal lampum njàmbur Cheikh Mor Abdou Seye ku daa jaamu yàllaa ngi ku daa ju ko ngi ku fonkoon Serigne Touba fonkoon waa karam fonkoon kitaabu laay Cheikh Mor Abdou Seye sedd na ah noo ngi ñaan leen fi jàng yàlla ko sëñ bi dafay xéewal ci barke doomu Touba kii doon wax wolofal bi léegi lu war a waaye war a wax ci sëñ Gana rek wax na ko ndax Gana yitteem yëpp sëñ Tuubaa la wane sëñ Tuubaa waxtaane sëñ Tuubaa xamle sëriñ Tuubaa moo tax ku bëgg sëriñ Tuubaa rek da nga ko bëgg léppam nag kanam la jëm nit ku baax la ku fonk doomu aadama rawatina ñu jànkati xasaay yi moo tax bis bu ñu dagg suñu téer di ko ànd ko moom sëñ Maalaay gi toog di suñu jëwriñ ak jànkat yëpp sëñ Bàkki Jóob luñ fi jàng yal na ko sëñ bi def ay xéewal ci barki borom Tuubaa ñëpp am yéene ci bi di siyaare nag maam Sëñ Fallou Sarr gii ñu ko tuddee muy lampum jàmbur tama barke ay xarit yëpp waa kër Sëñ Amar Samb ak bokk yëpp di ziare Sëñ Moussa Gueye Samb ak bokk yëpp Sëñ bi mu ci am ñëpp kontaan nañ ci moom itam mi ci yoon bi di ñëw jërëjëf. jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke Dia Cheikh wi su ko defee kon mu mel ne Serigne Modou Mbaye Ndiaye. dafa mel ne liggéey bi dañu bëgg a door mi may def signal kon xam naa da ngay ñëw nii sëñ Alaaji noo lay siyaare bu baax bëgg sëñ Tuubaa bëgg xasida yi di teral jànkat yi yal na yàlla guddal saw fan mi ngi noonu parfois sikki yi dafa am solo ci jàngkat yi jàngkat yi moom ku far ci moom sëriñ Tuubaa far ci moom far ci yow barke borom Tuubaa kon sëñ Modou aja kon bu ko defee ma dugalaat benn jànkat wala ma doon benn jànkat aka kon sëñ Bàcc Diop bisimilah nga def sa barkeelu wala a nee nañ kon ñu kii ah ñu tàmbali aca kon sëñ Moustapha mi ngi kon ñu tàmbali dañoo bëgg nag bu cérémonie bi jeexee njàng mi day continuer waaw bu cérémonie bi jeexee njàng mi day continuer kilifa toogaay bi daa xaw yàgg moo tax ñu bëgg a tënk ay kàddu ah ñu jox bàcc jërëjëf kon nee na ñu jox sëñ bàcc ba noppi ñu njëkkante ak waxtu bi kon sëñ bàcc bisimilah nga def sa barkeelu. أعوذ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 سال إلهي بالمناجات وأبدا الرحمن عاجلة كل مليا أنا منافع وأخذ المليا ما توجع زار له يا بلا إله إلا الله ظنني خير خديم المستوى إنني أقيم بمسار أخدم إلى دخول الجنة على القرار والمنى والمنى كن وابدا ريج بالذي كخمتي بدا ينصني كن وليا الكفار هي الهدى والبنون سيرنا وعلى الذي أغانيا ربي عني اشتكوا أبرع سماء الربيع المطاع من لم يكن حني يدع والكريا في عاليا ليس يريا شك في كون ابن عبد الله محمد من شك في كون ابن عبد الله محمد الوهاب للذي خاتمها بكلمها محمد قبل يفاخ فيها وفاخ جمعا والهدايا مخليا درجة المختار حب المرسلات الاعتلاء درجات العصيان رسولنا مدن باها خطوة عبدك سيدنا محمد المسلمين خدم أمته على الكرام في الدين الكل بإحترام درجة رعد الرسول أحمد سيارة الأخيار أخرى أمدا حق وجاء بسواب عجز كل والد والدا مدنا نزيعنا خالدا آيات ربنا وآيات مبان ومن يأتي وفاق تبرز للمنزلاء وعوجان بالخيام والمسلمين محمد عليه عبد السلام مخدم بخير فعل وكلام بداية الماء يعيق الخيار دلوا على الورى والإخيار شهد كل سيد يختار لأنه مداه المختار ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërëjëf sëñ Bàcc njàkk ngi neex na lool parce que fu na am na solo kon bu ko defee sëriñ Modou Mbaye Ndiaye nga ñëw fii ñu tàmbali li nga xam ne mooy cérémonie bi ndax kilifa yi doon xaar ak si nanu sëñ Mouhamadou Mara Seck nga nii toog sëñ Abdoulaye Seck nga nee toog ñu ngi koy nuyu bu baax kon sëñ Modou su ko defee nga daal di ñëw ñu daal di tàmbali li nga xam ne mooy liggéey bi bismillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu delluwaat di sant di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride mu yàgg fi loolu te waaye di ñaanal bu baax Serigne Bassirou Mbacké moom soxna Anta Ñang mii ñi xoole boroom daaru yàlla ko fi yàlla yàggal te ko di alhaji maam Thierno xalifam sëriñ Cheikh Awa Balla di ko ñaanal mu yàgg fi te waaye di ñaanal sëriñ Modou Mokhtar moom sëriñ Cheikh Awa Balla sunu borom dolli leeram te ci barkeem kaddu yi nu yëkkati nag ak nuyoo bii nuy nuyoo lépp ñoo ngi koy teg ci loxol jëmm ji toog nekkal fi mboolem jabatu borom daaru gi yëpp di kilifa jataay bi muy sëriñ Aydara Mbàkke moom sëriñ daam faati moom maam Cerno Birahim ndaamal daaru Mbàkke yàlla nag fi yàgg te wér sa teewaay bii nga teew ci tànt bii fekk si seen taalibe bii nga xam ni amul lu dul Cheikhul Khadim ak maam Cerno faati bëgg gu mu bëgg sëriñ Touba. ak delloo njukkal gu muy delloo njukkal maam Cerno daamal daaru loolu moo waral ba suba di màggaluk daaru balay sa buri nga xat xat lool ndax suba la màggaluk daaru nga bàyyi yitte yépp ñëw fekk sëriñ Gana Messere Maxtaar xelam gën naa dal xolam gën naa sedd bis bii nag at mu jot daf koy amal di ci sant sëriñ Touba di ci delloo njukkal borom daaru di tànn ci cheikh Serigne Touba yi di sa di di delloo njukkal borom daaru waaye nag di ko tuddee cheikh yi Serigne Touba yi nga xam ni dañoo lëggéeyal sëriñ Touba ba sëriñ Touba gërëm leen Serigne Gana Messere rek daa wax ni xam na ni boo yebaloon kenn ci njaboot gi mu doy boo yebaloon kenn ci taalibe yi mu doy waaye mu xam xataay bi moo tax bëggulaa téye jataay bu yàgg moo tax daf ma wax ni bu nu burelee délégation yi nga xam ni teew nañu fi bu ñu noppee nu joxe kàddu kii dalal mbooloo mi bu ko defee fas yéene ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi mën a noo ñaanal nu bàyyi ko mu dellu ca gan ña délégation waa kër sëriñ Abdou Rahim waa euh, délégation waa Njàmbur muy waa jàmbur sëy di waa kër sëñ Mor Fallou sëy ñu gën koo xam sëriñ Mor Abdou sëy nimra su njàmbur boobu ñu bàyyi ko ci xalifa sëriñ Mor Fallou sëy muy sëriñ Abdou Samad sëy yebal na fi sëriñ Fallou sëy sëriñ Abdou Khader sëy sëriñ Alla sëy sëriñ Fadilou sëy sëriñ Abdoulahat sëy ak soxna Aminta Kolle sëy ak ay rakkam ak mboolem taalibe yi waaye nag ñu ànd ak waa kër sëriñ Amar Samb sëriñ baa euh, sëriñ Gana gis na leen mi ngi leen di sant bu baax di leen euh, gërëm ci seenu teewaay délégation sëriñ Cheikh Abdou Silla ñu bàyyi ko Louga sëriñ Jili Samb moo ko jiite sëriñ di Samb ak ay rakkam imam Baara Mbooj di ndijaayam sëriñ Ousmane Silla ak ay rakkam sëriñ Ibra Silla ak ay rakkam ak yaayam soxna Maada Mbooj ak mboolem njabootam yépp soxna Anta Colle Mbo Mbooj ak Ayda Silla ak ay rakkam ak soxna Faati Jeng Njaay ak mboolem soxna yi ñu àndal ñoom ñépp teew nañu mu mel ni it ñi nga xam ni dañu fee teew te at mu jot ñuy ànd ak sëriñ Gana Mesere bis bi ci turu directeur hôpital bu jannatu ñu nekk waa Croix-Rouge Basirou Ndiaye nga ne ànd ak équipe bi mu àndal ñoom bi nu ñëwee ñi ngi nekk ci liggéey bi di def ay consultation gratuite moom it sëriñ Gana mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Thierno moom sëriñ Baara Xureja ak rakkam sëriñ Cheikh Baara Xureja ñoom ñëw nañu ah, kon su ko defee rek euh, nu maasa déglu kàddu yi kàddu gu njëkk gi dañ koy jox sëñ Ousmane Kama mi nga xam ni mbooleem soppee sëriñ Gana Messere Maxtaar moo leen jiite sëñ Basiiru Coro yónnee na fa délégation seen taxawaay rafet lool moom mooy la jox kàddu gu njëkk gi mu ubbi ci turu mboolem soppee yépp bismillaahi rahmaani rahim assalaamu sang yu tedd yi nga xam ne ñoo tooge jataay bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaare di leen jox seen yéeguwaay bi leen seen maam jox waaye di sant yàlla bu baax ci jataay bi ci boroom jataay bi nga xam ne teew na ci bis bii muy sëriñ ay dara mbakke di jëmm joo xam ne eh, gis ko rek dalay delloo sa diggante ak sa boroom waaye day tax nga gën a xeemeem sëriñ Tuba muy koo xam ne tey laa masa jàkkaarlook moom teg ko sama bët waaye yàgg na ma topp mbiram di ci jariñu bu baax a baax di yokk sama taalibe ak sama murit di koo xam ne ndaw ñu bari tey jii waxuma ñi ñi mu yilifal boppam ci biir këram waaye am na ñoo xam ne xamu leen ci zahir te mu ngi leen di jubbante di leen tërbiya te di leen jaarale ci yoon wi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëgg kon Mbàkke la noo ngi lay ñaanal sa fan gudd lool te nga wér ndax yoon wi day buñ barele woon ñu mel ni yow kon sëñ Touba léppam dana jakk fii ci ndaw ñi ndax ku la dégg sa kàddu mu sar ci biir xolam kon Mbàkke ñu ngi lay wax dalal ak jàmm di sant yàlla ci sa teewaay fii ndax sunu ndax sunu yokkute ak sunu texe rekk la kon jërëjëf Mbàkke ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la sant di sant bu baax ñi nga xam ne dañ leen a tudde bis bi ñenn ñi ñu darajale leen ko ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant waa kër Sëriñ Mor Faasey làmpu njàmbur ñoo ngi leen di sant bu baax seen taxawaay ndax xam nga ne Sëriñ Tuubaa ak defaram mooy xeeti li jaam ñi rek seen kanam yu xar kanam yu tedd yii ngeen dugge ci kër gi duggee ko ci baas bii yërmande rekk la di sant bu baax sunu wóorule di xaritu sëriñ Ganna jóge ba Louga am taxawaay bu rafet taxawaay bu mat bu matale sëñ Abdou Silla sëriñ Ramat ma Ramata Silla ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jottalil ñu ko ci mbooloo mi nga àndal yépp bu nu sañoon wala nu man ko ñépp la ñuy tudd seeni tur di sant yàlla bu baax ci mbooloo mi nga xam ne ñu ngi teew ci bis bii te ñépp di ñoo xam ne sëriñ bi am na lu mu def ci ñoom ngir ñuy xettali jaam yi di sant bu baax soxna yu tedd yi nga xam ne ànd nañoo ak délégation yi ñëw fi ak seen ni nu taarale bis bi waaye ni ñu joxe yitte bis bi sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm am na mbégte lool di sant bu baax presse bi ci seeni taxawaay rafet na lool di leen dalal di leen ñaanal sunu boroom yokku leen di sant bu baax sunu mbokki jàngkat yi di jël nuyoo bi ak ziyaar bi ak tatagal gi di ko teg ci loxol sunu jëwrin di xaritu sëriñ Ganna sëriñ Mara sekk kenn ku ne xam na ni mu demee ak sëriñ Ganna Messere Maxtaar ndax benn lañ kon ñu ngi del nuyoo jàngkat yëpp di ko teg sa loxo ak sëñ bàcc mi di ziyaare ñëpp di sant ñëpp di sant bu baax sëriñ Abdoulaye Seck moom it ñëw na ci bis bi ñu ngi koy sant bu baax di sant kuréelu xasaayit yëpp kuréelu xasaayit bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla bu baax di sant bu baax a baax mbooleem soppeeb Serigne Ganna boo xam ne mu ngi ci biir réew mi ak bitim réew xam ne ñoom sonn nañ ci lool ci bis bi njax safoo gunu safoo Serigne Ganna Messere Maxtaar di sant Serigne Ganna bu baax di ko ñaanal yàlla suñu boroom dolli ko taxaw bu baax te dimbali ko lii rek war naa yee murit bu ne ndax li tax mu am lii day mooy ne sëñ bi rek ndax sëriñ Aydara mii nga xam ne moo toog jataay bii tey lu ko tax a war a jëf mooy sëñ Tuubaa kon nag Mbàkke jërëjëf waaye sëñ Gànna sa sang bu tedd ba Cheikh Mamadou Makhtar moom lépp mooma ci ngërëm lu mu am ngërëmal ngërëmal sëriñ Tuubaa wax ñu dégg def ñu gis ñun ñii de jàppale ci liggéey bi day kenn ku ne yaa ngi tedd yaa ngi nekk jàmbaar ci ci yoon wi ci barkeb sëñ Cheikh Ahmadul Maxtaar moom yi kon nag jërëjëf Mesere ñoo ngi lay sant bu baax di gërëm di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah Rafah TV de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ